salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di ku nekk euh, di la jox sa wàccuwaay xanaa juste di fàttali nag euh, ginnaaw bi nga xamante ne ñaanal nañu euh, Ousmane Sonko yàlla mooy ko wér incha comme ni mu ko waxee woon rek moom en personne mu xamal nañu ne combat bi dinañ si ñàkk ay dugub te loolu nag dafa wax boobu dafa laaj dégg-dégg moom xam na ne dina sonn trop trop. waaye finalement si kàntanu yàlla insha allahu rabbi yàlla dina ko jox ndam parce que dëgg ni ma ko yàggee wax chaque jour mooy nekk si kaw fen caaxaankat yi nag ñi nga xamante ne ñu ngi jàppale Mame Mbaye Niang man Mbaye ma ndaw maa leen wax ne seen fin mu ngi proche billaahi seen fin seen njeexantal mu ngi jege lool ba si Mame Mbaye Niang lii démb jógee point euh, jógee tribunal ñu laaj ko ana sa waay mu ne dafa feebar loolu ngay ndamoo waaye nag lii si sa kanam yow Mame Mbaye Niang wallaahi azim mooy gën a mel doo gis la ci gën a métti bi nga juddoo ba tey man maa la ko wax man maa la wax na yow Mame Mbaye Niang bi euh, li nekk sa kanam doo dundal la loolu te insha allah taala dina ka gis waaw ndax bañ demé ci réew ma xamantene kaman protéger ka xamantene ci si ay tiaxan la nek te say euh, euh, euh, ñi nga bokkaloon pat xarab la demb ndax sa gi nga def tay ñu di la défendre day metti rek mais barka salatu ala nabi billahi la ilaha illa huwa yéen ñepp da ngeen fay billaahi fi maa jeexalee ba yaakaar mukk ne Ousmane Sonko coono gi moo daj ci lii dina neen déedéet barke alxuraan seeni complot wax seeni pexe ngeen jël justice bi ah, téye ko di leen di def la leen neex wallahi azim du ngeen fi mucc yàlla seede na ak ay malaakam du ngeen mucc du ngeen mucc É impossível.